Euh, engagement yi nga xam ni Sénégal mm, yàgg na ko jël par rapport ak li ñuy wooyee partenaires bilatéraux et multilatéraux donc euh, dans l'ensemble euh, je trouve que pour une première sortie euh, ça a été une bonne chose euh, mais comme euh, ministre de la justice bi nga xam ni François Mitterrand en France dafa ko mujj nommé président du du conseil Euh, du conseil constitutionnel li mu tontu woon publiquement au président François Mitterrand daf ko ni euh, président j'aurais un devoir d'ingratitude envers vous donc je pense que peut-être euh, lépp rafet na rafet na que président Diomaye Faye remercier Ousmane Sonko mi nga xam ni mooy président parti dissous PASTEF mais defe naa ne à partir du moment ou euh, élire nan la président de tous les Sénégalais yow waroo euh, wone ne euh, kenn ci askan bi ëmb na sa sankal wala ëmb na sa sutura. jërëjëf alors ñëpp xamoon nañ ni le successeur de Macky Euh, son principal chantier dafay nekk réconcilier les Sénégalais parce que entre mars 2021 ak 2024 euh, quand même euh, suñu réew on a frôlé le pire dund nañ lu méttee métti peut-être loolu moo tax le président Bassirou Diomaye Faye daal di insister sur la réconciliation El Hadj Ibrahima Sall président Macky Sall tàmbali woon na poser quelques actes jëm ci wàllum réconciliation boobu doxalee ko ak euh, la loi d'amnistie ak yeneen ak yeneen yu mu jëloon di libérer ay détenus et tout le président euh, Diomaye Faye euh, une fois mu jël fonction naka nga jàpp ni quels sont les actes qu'il doit poser allant dans le sens de cette réconciliation ah, alors madame euh, sa question bi difficile na lool parce que mon mënuma imaginer géntu président de la République Euh, donc man mu imaginer gént géntum mais moom moo xam li mu war a def mais li mu war a def nag euh, war na boole nit ñi fexe ba ñëpp nekk benn mais loolu aussi boobu bu ñu koy def dañ ko war a def si dëgg parce que nëpp nëpp baaxul day yàq réew day yàq dëkk jikko day yàq dëkk donc lépp lu ñu war a def tey Sénégal yaakaar naa ne fi ñu toll nii dëgg moo ko war a lal ak transparence et ñëwaat na si mais je pense que c'est la condition essentielle bu ñuy baal nañu baal si kaw dëgg bu ñuy baal nañuy baal si kaw justice bu ñuy effacer nañuy effacer ba xam ku nekk li nga def loolu moo ab moo ëpp solo gaawantu jàll maasaale kenn du xam responsabilité kenn je pense que dëkk bi bu ñu ko waree continuer tabax ñu war a dund ensemble il faut que ñuy waxante dëgg il faut que lépp leer il faut que ñu def ko si njub ak si dëgg man loolu laa gëm mais gaawantu tegle ay mesures rek pour gaawantu juboo nëpp nëppal oote ñëpp ñëpp bokk ku nekk jaaraat ni mais je pense que du luy defar euh, lépp lu ñu war a defar ëllëg lu war gën a consolider président de la république maa ngi koy ñaan tey mu def ko si njub mu def ko si dëgg ak mu def ko si transparence wasalaam loolu laa mën a Mamadou euh, les actes yi ngay xaar président posé ko allant dans le sens de la réconciliation nationale ponk yu bëri yu am solo euh, benn bi d'abord puisque dañuy xaw jéem a dugg ci biir tuuti d'abord ci forme bi ah macha allah donte séeréer la colin euh, bi jekk na ñaareel bi aussi ton bi mu utilisé jàmm ji mu jiital bëgg boole ji mu jiital loolu yëpp vraiment dañ koy dañ koy rafetlu bi ci tegu mooy mooy symbole bi euh, tout à l'heure bi Ousseynou di wax ma ne Radisson mooy suñu Fouquet ah pour ñi xam histoire Fouquet man je pense que pour un message quand ci wàllu symbol Euh, président Macky Sall Radisson la defee woon defe naa sa première déclaration. Ah surtout que dafa euh, euh, waaw waaw mais parce que Radisson la ñëpp ñëpp xam nañ ne Radisson la. am na benn kii hôtel Fad King waaw waaw. bi et deuxième mandat bi waaw li li léegi léegi fi li ma buggoon wax rek mooy que ni xam nga moom ci boppam njiitu réew mi dafa ne dafay wàññi kii bi. dundin yi il faut mu néewal ko mu pour mu euh, mu mu bañ a diis mu continuer bañ a diis parce que ñëpp xam nañ ne dund gi cher na te euh, bu ñu mënee wàññi euh, lu jëm ci njëg yi lu jëm ci luwaas bi ak yeneen ak yeneen pour woyofal nit ñi diisaay boobu defe naa loolu am solo la mais koo xamante ni dafa bëgg envoyé benn message ne askan wi yéen a ma fal Euh, seen soxla euh, moom moo ma yitteel ci symbole choix lieu bi effectivement mën nañ ci mën nañ ci wax mais si si si quelque part c'est une façon aussi d'encourager l'initiative privée parce que ñëpp xam nañ ko ku moom ku moom hôtel boobu euh, tant mieux mais en tout cas symbole bi buggoon naa ko relever surtout que ki ko ki fi ki ko wuutu ci ci nguur gi noonu la noonu la defee woon tout à l'heure monsieur Fofana a dit également vingt-cinq ministres ba koy ma koy xaw tooñ tuuti mais vingt cinq ministres noonu la président Macky Sall aussi tàmbale woon man j'attends peut-être que pourquoi on pense qu'on doit être à vingt cinq ou à trente pourquoi pas vingt pourquoi pas vingt pourquoi pas quinze euh, kii la c'est c'est une question c'est un point boo xamante ni defe naa bu bu am bu am solo loolu xëy na euh, moom euh, puisque fal nañ ko puisque ay fan yu néew bu soobee yàlla dina dina taxawal gouvernement bi dinañu dinañu xam vraiment ban intention la si am bi ci tegu euh, ci ci rupture euh, man je pense que euh, PASTEF wax naa ko sànq même si c'est un parti dissous peut-être que voilà il y aura un autre décret qui va restaurer le le PASTEF comme parti politique légalement constitué Euh, dafa mës a woote rupture euh, mais man damay interroger wu sur volonté bi nga xamante ni réelle puisque là maintenant am nañu nguur gi war nañu mën a doxal loo xamante ni ci wàllu rupture en tout cas dina rassurer nit ñi mais bu fekkente ni euh, y a des actes yoo xamante ni ca njëlbeen yoo xamante ni ñu en tout cas dans le discours yu ñuy yu ñuy def mën na xëy na indi un un doute par rapport ak cette volonté réelle El Hadj Ibrahima Sall a raison de dire réconciliation bi lu am solo la waaye bu mu nuroog nëpp nëppal et je crois que monsieur Fofana il est important tey jii que sénégalais yi xam lan la wund d'autant plus qu'il y a quelques jours wax nañu protocole du Cap Manuel am na walla amul man je pense que ci acte yi nga xamante ni surtout les premiers actes yi nga xamante ni président Bassirou Diomaye fay dina ko poser war na war nañu tout de suite am une idée précise de sa volonté de de def rupture maanaam changer li nga xamante ni sénégalais yi euh, gis nañ ne ces dernière années ànduñu ci loolu ci wàllu justice la lutte contre la corruption wax na ko loolu aussi c'est des actes yoo xamante ni yu am solo la euh, El Hadj Ibrahima Sall nga xamante ni c'est vraiment son sujet favori l'évaluation des politiques publiques defe naa loolu yëpp buñ ko buñ ko boolee dina doon loo xamante ni lu takku il faut que ki nga xamante ni moom mooy njiitu réew bu bees bi mu jël des décisions yuy rassurer la population plus particulièrement nañ ko wax aussi Parce que PASTEF a été porté quand même par la jeunesse. Un immense espoir. En même temps, ñu ça doit nous faire réfléchir. Mais jeunesse bi ak nu ñu bëree macha allah euh, c' est quand même euh, combien soixante quinze pour cent de la population à moins de trente cinq ans donc loolu defe na lu am solo la que le président euh, de la république bi nga xamante ni ñu ngi koy soog a fal di Bassirou Diomaye fay mu jël ay décisions d'entrée yuy rassurer quand même la population ci volonté réelle bi parce que les gens ont tendance à dire que état de grâce c'est les trois mois cent jours les, ou cent jours mais c'est un président qui qui n'aura même pas d'état de grâce la preuve tey ñu ngi def le premier débat au lendemain de l'élection ñu ngi dugg ci ay sujets yoo xamante ni yu am solo même si je comprends par ailleurs et c'est ça aussi la posture républicaine bu ñu falee njiitu réew bu bees war nañ ko mën a am may temps pour mu taxawal gouvernement am pour ku mu organiser selon sa vision nan lay doxalee sa gouvernance mais il n'empêche que il est important aussi parce que moi je me considère